وسطوري ذكى رحيم بالنبي رحيم وآله وزوجه الكندري مع قد كفاني العذاب الكدري وجاب في سفينة قبل سنة يخلد في المدينة أغلس في المدينة كناكري للمصطفى الماحي بلا مناكري هرب مني حقل بي كرم مسار مبارسي ولسوى يوم سام ملكني الملك عند دومي ما قد كفاني إذا تسعوني نفعني نافعتي لمروني بما تلي يخفتني كل ولي خديم من كفاني البلوى يسوق سكمة لخير ناو نورا ولا إله إلا بوك جبل الانتهاء بوك إتالي نوغي دي نوي دي دين زيارة di jiital ci nuyoo bi ak ziara bi sunu kilifa tedd bii muy Cheikh Mouhamadou Mountakha ibnu Cheikh Mouhamadou Bachir bi si bu baax di ñaan suñu borom yàgg leen si lool bañ a tamit loolu la yëgale yéene naa ni seen maam ak seen góor bi ak sama xarit borom kaar yi dañu ko jàng gi mooy fàttaliku rek. borom téléphone bi. borom téléphone ci kanam. ci nu mu jàngale. ndax ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam leeral li ko tax a jóg ni abdullahi la wa rasuluhu noonu la yonente bi noonu la sëñ Tuubaa radiyallaahu anhu leerale ni li mu doon bu nga xam am naa wax suuf bu yàlla ñoo tax lu ay détails yi ñuy détails yi nekk bàcc yi jëmmal seen tubaay dafa am principe leer mu nit bu ñu wax bu ko defee ne kii laa jaar lu tax dikkaat rek ci ginnaaw bi ay détails am dafa bind la bataax ni bataax ku sama jëf ma ne képp koo xam nag yaa ngi gis mbind mii nanga xam ne man jaamu yàlla laa di liggéeya yonente bi sallallahu alayhi bi mooy sama yonent di sama wasila alquran it mooy sama tegtal daal di wax ni kaaba gi mooy sama la lii daal la wax ni mooy pas-pasam te nit ku ne dañuy bëgg nga leeral sa pas-pas ba nga xam ne bu doonee lu wér nit ñi mën koo seere ëllëg ci kanamu yàlla bu wérut it ñu mën laa jubbanti sëriñ bi nag lii la wax lépp lu mu waxaat gannaaw bi nag ay détails la yoo xam ne day détaillé loolu yi mu saxal ba noppi sëriñ mu wax ni rafaatu aqlaami له مع الودات مع المدات وسي وسيعت بأدب وبمداد dafa woon samay xalima ak samay daa dama ko yëkkati jox ko yonente bi alayhi salaatu wasalaam waaye ñu gungee ko it ab yar akuk cofeer delluwaat ni faaraxani bihi jamiu lkafirin qablu waddani jamiu shakirin ci liggéey bi may liggéeyal yonent bi sama soom ci laa tàggook mbooleem yéefari mbooleem way sant yi ci lañ ma bëgge kon doy na euh, xel mu dal ci ànd ak sëriñ bi ni bokk nga ci shaakiroona yi muy wax te suñu borom ci alxuraan dafa wax ni xaliilan maa tashkuru ginnaaw nag jaam yépp daf leen defal xéwal wane ni lu néew lañuy sant sëriñ Tuubaa wax ni wa waddani bihi jamihu shaakirin kon loolu doy na xel mu dal ci képp koo xam ne am nga ak cofeel ci moom mu delluwaat ni hërëbatil fujjaaru turran li mboolem mbooleem kàccoor yi daw nañu jëm feneen fudul ci man wasaara al abraaru hobban li hawaay wax ne mbooleem woy baax it jëkkanti nañu sama bànneex ngir cofeel gu ñu am ci man mu mel ni kon sëriñ bi dafay détaillé ci biir xasida yi pas-pasan bi mu daan dund ak ni mu daan doxe digganteem ak yàlla ak digganteem ak yonente bi alayhi salaatu wasalaam wax na it ni xidmatu xayril aalamina salabat liyal kitaaba wal ida lii galabat liggéeyal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ma rekkil alquran moo ma notal it samay noon kon nag jataay yu mel nii jataay cant la lu war la ci nun ñu sant ko ndax teewe ko rekk barke la teewe ko ak texe la teewe ko ak mucc la waaye teewe ko it ak xéewal la ma ni wax naa ay yoon ci jataay yu mel nii ne fekke gi rek tawféex la joo xam ni nit mënu koo xalam ndax ci xadis bu wér yonente bi daf ci wax ne dafa am malaayika yu suñ borom bind yoo xam ni jataay yu mel nii képp moo leen tax a jóg jataay bu mbooloo daje di fàttaliku yàlla saa bu ñu ko gisee dañuy wootante ci seen biir ni xëywaay ñëw leen li leen taxoon a jóg kat mi ngi nii buñ ñëwee dañu leen di peeg ba ca kaw seen borom dana leen laaj ni leen ana nu ngeen fekk sama jaam yi te fekk ñoom moom mi leen di laaj sax moo leen gën a xam la mu leen di laaj ñu ne ko dañu ko fekk de ñu di la sabaal di la kàbbar di la réyal di la ñaan di la jégal mu daal ni ndax dañu ma gis ñu ne ko déedéet gisul mu ne waaw bu ñu ma gisoon am na ñuy def ñu ne ko bu ñu la gisoon de lu ñu defoon dinañ ko yokk mu ne ana lu ñuy ñaan ñu ne ko aljanna ana lu ñuy sàkkoo muslu mu ne ñuy muslu ci sawara sunu borom ni maa ngi leen di seeral ni lañuy ñaan may naa leen ko la ñuy muslu it musal naa leen ci mu mel ni fofa dañ ko wax ne ko ah diw kat dafa jaar kep waye bokul ci mbolom mun len ulaikal khawm la laa yasxaa ña fa jaar sax doon lijjanti seen problème sax jéggalaal na li kon loolu tawféex la ci fekk jotaay yu melni muy jotaay bo xamni lepp jotaay bi yàlla kep tax am na ñu ciy financé seeni alal ngir jëm yàlla am ñu ci financer seen waxtu waxtu yi bop ngir jëm yàlla am ñu ci financer seen katanu bop ngir jëm yàlla waaye duñ ci yëg sax ab coono ngir yàlla képp ko war mu mel ni kon dajale ay xol yàlla képp ko man lu jafe la dajale ay xol lu jafe la nit mën naa jël ay milliards bëgg a dajale xol yi nit ñi te du mën a nekk moo tax saa bu xol yi daje ci jotaay bi mel nii rek nañu xam ne yàlla képp moo leen fa dajal du leen waaw ndax suñu borom li wax yonent bi ci alxuraan mooy law an faqta ma fi l ardi jamian ma alafta benn xolo bi ni ko adduna li ci biiram boo ko financé woon nit lu tax nga boole xoli nit ñi walakin allah allafa baynahum yàlla rek moo mën a boole xol kon lii tawfeex la ñu sant rek ci war mu mel ni kon bis la boo xam ne dañ cee daje ngir fàttaliku bisu zikar la bisu sant la bisu ñaan la waaye it mooy bisu it nag fàttaliku kan radiyallahu anhu kon ñu wax ñu xam rek ni euh, Sëriñ Tuubaa bis bii ñu daje ngir di ko def muy muy xasida yi ñu taxaw ñu daje ngir jàng ko ak di ko sargal ak di ko réyal ak di ko màggal bis ni ko tey lépp lu mu lu mu am rek ci la ko am waaye nag lépp lu mu daj it nag xasida yi moo tax mu daj ko loolu daa ma tax xam lu mu daj rek ci la ko daj waaye lépp lu am ci la ko ma tax xam Cheikh Mahamadou Bachir dafa wax ni radiyallahu wax ci minal baa xadim ne bi moom wax ci làmmiñu boppam ne ma xasida sàngam gi bi mu jeexee mo sabab sama tugub géej gi gi mi ngi tuddu muqaddamatul khidma ñu diko tuddé al muqaddamatul kubra fi salati ala al bushra sëriñ mi ko xasida gi di ak agam nangu ko suñu borom nangu mo sabab yonu géej kon mu melni kon ndekete xasida dana andi nattu bu ton yonu géej waye nak ab nattu la bo xam dañ ko day xewal ñu ëmbee ko ab nattu ci kaw moy ni'ma fi tayyi niqam mu mel ni kon xaside yii ñu daje tey di ko màggal moo sabab sëñ bi ay këram wéet mu dem ba ay njabootam yëpp tasaaro mu wax ne xusóori xalat wal ahlu anni tafarraxat samay kër wéet na samay njaboot tasaaro nañ kon xaside yi moo sababoon loolu loolu it ba tey ki nga xamante ne moo ci yëngatu war naa xam li mu nekk lan la ba mu ci dajee ci nattu it nag xam ni jegeegu la dajeeg nattu bi nga xamante ne moom sëñ bi dajeeloon waaye day def ni bala ni nux nux dana ni war war fokk mu metti doog a loolu it ba tey euh, daa mat xam ci lu mel nii mu mel ni dafay wëlbati xol yépp jëme leen ci suñu borom muy xasis day jëme day yépp xol ci yàlla li gën ci àdduna nag mooy wëlbati xol yi nit ñi jëme ci suñu borom loolu yi nag la Sëñ Tuubaa du liggéey liggéey ko ci biir xasida yi ba ni muy wëlbatee ab xol jëme ko ci yàlla sax néew nañu gis lu ni mel mu mel ni جذب القلوب لا لعلام القلوب كون لاغي دا فاي خيتي خولي جيمي ان شاء الله مي خم ليب دلني مواهب النافع في مدائه الشافع ماي اجي جارني جي تي تاغ يونت بي اجي رام اندي وات جنات تديكو مقدمات الامدا في مزايا المفتاح كون ليب لوي ييك لوي ييغي خولي لا جيمي كو سي الله مو فيس دل اك لير اك مبوت يوي بو فيكون كينن لا كودول مو daf koy denc mu doon aw mbakkaay fekk woo xam ne jëmmam a koy tax a jóg akuk njabootam waaye du doon keneen ndax kat ay jamono ca gannaaw ñi jëkk a xam xam-xamu kimiya ci égyptiens yi dañ ko daan denc mu doon ay mbóot yoo xam ne seenu njaboot képp lañ koy jox waaye duñ ko jox keneen naka noonu ca Yunaan xam-xamu médecine ña ko jëkk a xam dañu ko daan def secret di ko joxante ci seen biir waaye ku dul ku bokkul ci famille bi doo ci bokk ba ci ahlu tasawuf rek fii rek da nga fi gis ñoo xamante ne danañ yor ay sirru ay xam-xam yu jóge ci yàlla yoo xam ni dañ koy denc ngir seen jëm bopp ak seen njaboot waaye duñ ko jox kenn ndax suñu waa def na loolu defu ko de jës bu mu wax mu xadimaat mbóot mu ne ngi ci leer gu nekk ngi njëriñ adduna alaxira ngi ci te mi ngi fii ci marché bi boo demee njëg gu yomb nga koy jënd waxuma sax mu defal ko ngir murid yi waaye daf koy def ngir adduna bépp pour ñëpp mën ko jëriñoo kon kooku euh, lu mat di xam la sëriñ Tuubaa kon dafa ñëw ngir yeesal si diine yonent bi sallallahu alayhi diine du màggat benn yoon waaye dafa màggat ci xol moo tax mu ñëw di ko yeesal si ci xol yi ne ñi wax ne lil Mustafa nawaytu maa yuy jaddidu sunnatahul xarra damaa ñëw ngir yéene yeesal yonent bi yeesalal ko su sunnaam kon diine moom jikko rek la kon ku la gën a rafet jikko rek moo la ëpp diine waaye ku la ëpplee jikko yu ñaawit gën laa sori diine jàng alquran ak xasida ak sikar ak yu baax yooyu yëpp dañ koy def ngir mu mën a am rek jikko ju rafet li fekk nit ki amagul jikko ju rafet la taxoon alquran a jóg mbaa la taxoon xasida jóg na nga xam ne àggu ci ba léegi loolu daa ma taxam ba tey sëriñ tubaa nag moom képp moo doon jihaat ba muy jihaat antoon kenn antoon kenn te bi mu demee ba ba dajal la muy dajal yi daf ko tasaare ñëpp bokk jaahatu bil xatti la wax si nii na wax di mi ngi ko wax ci genn xasida goo xam ne mi ngi ko tàmbalee ci ليعلم الناظر أن خطي إلى إلهنا أحب خطي كوي خول كوني نخم سو بند مي مو غن يالا ميب ميد لا تتري جاهدت بالخط سنين وحدي من لم يكن موحدا ساجد جهادنا من كبو أي أت أك نون ييغا خامتان دانيو ويد يالا بالخط جاهدت عدو الله عشرة أعوام بذكر الله جهادنا تي مبند فكيات من عام أيسس لعام كسس وقبل الجميع هم أكسس ناس سن نقول من لبت أكسس لكن فاليوم ما خسرت في خطية إلى تجديد دين الله وحب الله لكن عندما صبت مني جمع كتية يسل دينه لأن قد جعل الإله خطية أهب إليه من كل كتابة تهب سن برم دفنا سمم بن موكو جنل مب من من يبك لا لو أنني لم أترك الكتابة مجاهدا بها ذوي العتابه لمات بالوباء كل كافر إن لم يتوبوا للإله الغافر ما بايوتون بندمي دي جهاد رك rek نون يالله yàlla ييب دنا yëpp سي مباس بون mbas buñ buñ tubut daa ci teg laakin afawtu an jamihi naas waaye damaa jégal mbooloo mépp li ndigal yi li ci Sëñ Tuubaa jëkk a digle mooy ab murid wërta yakam ndax fukki at la jihad do gis ak fatu ak wala takun lil fath dhasti'jal bul yàkkamti ak fatu li annahu l maxiidu lirrijal nit yàlla yi bu ñu gisee benn fatu mbaa ñu gis karaama dañ ci daan am kersa nit jigéen di amee kersa ji bu gisee regal loolu tax mu ne takun lil fatahi da li annahu l maxiidu lirrijal del wax ni sabran jamila laa takun kasula fokk nga muñ muñ ko rafet tabul taayal ndax innal kasula laa yasuudul jël ndax taayal kat ku def du sang ak maasam waaye nag nit ñi jamono bu ne ñooy nit ñi rek nit ñi ñi fi nekk jamono bi ñu toll di sànni xeer nit ñu baax ñi di wax lu dul noon ñoo fi nekkoon naka jekk naka jekk ñoo fi mas nekk ñoo fi nekkoon démb ñoo fi nekk tey ëllëg ñoo fi nekk waaye nag léegi dadi ba ci yonente bi gën ci nit ñi sax am na ñooñ xeex ak moom képp lañ mënoon ak di ko sànni ay xeer waaye nag nitu yàlla piir du geesu ku koy tagg du xoolit ku koy ŋañ sëriñ Tuuba ka ko daan tagg ak ka koy ŋàññe yemoon fi moom ci yërmaande jëm leen di yërëm ak njëgal ga ak ñawante ga ku yërëmoon doomu aadama yi moo xam ña ca baax lañ moo xam ña nekk ci ludul noonu lañ ñuy ku yërëmoon nit ñi la ka cay topp yàlla ak moykatu yàlla moo tax bi muy ñaan dafa wax ne xot ummatal Mustafa han kulli mafsadat na nga ma aaral xeetu yorante bi ci lépp yàqu-yàqu daal ni wal tarxamil xalqa waaye da nga ña nga ma yërëmal bi ne fi yaa man jaddahum badaa sëriñ tubaa lépp daf ko aare woon léppam def ko aare woon activité yu tëppale dama di fàttali ko toujours activité yu tëppale jamono bu ne yaddi ta xottu wax wala saani yaddu jamono bu loxo bi bind lam yi mi ngi jàng mu dellu wax ne xal bi yan wil xayra wal lisaanu tanxoo wa lahul askaaru sama xol lu baax la yéene sama làmmiñ fu mu toll day day day day day fàttaliku yàlla kon ma jeexalee ni Sëriñ Tuubaa jikko la jikko nag ñaar la topp ndigal la ak bàyyi tere Sëriñ Tuubaa ñaar yooyu la jikko la jikko nag topp ndigal la ak bàyyi tere kas biya tawxiidun la wax omatun li nabi sëriñ bi dafa wax ne sama pagu pàgguteef yëpp mooy wéetal yàlla ak tàgg yonte bi sama sama loolu yi nag ay yoon la ko wax ci xasida yëpp wax nañ léegi yaqulu abdullah wa huwa ahmad xadim man sumaatu wa muhammadu delluwaat ne xaalal xadimul abdu wa huwa ahmadu wa rabbahu bi lantihaayin ahmadu dellu wax ne yaqulu man lay si saadu ahmadu maalikahul abdul xadimu ahmadu kon léegi principe boobu ci doon dox muy al ubudiya wal xidma jaamu yàlla liggéey jaamu yàlla liggéey jaamu yàlla liggéey lépp lu ñu war nag ay détails la yuy détaillé baat mu doon koo xam ni ci wàllu jikko yi ñuy tere ku daan bañ wax lu dul dëgg la fenn daf ko daan tere ak jëw jëw mooy deru nit nga nekk ci jaxul la neex rambaaj mooy jaxas diggante ak nit sëñ Bachir dafa nekk li ci mënul baa xadim bi ni benn bis dafa am ay taalibeem yu amoon jafe-jafe ak eh, ñennat nee na bi mu tàggoo sëñ bi sëñ ko boo demee de fexeel ba wax lu dul dëgg bari nit bi wax sëñ Bachir ne bi demee lan ma laa jëfandikoo muy damaa dem man leen bañ ma laajee man leen te noonu la moo ko wefel tooñ kon yoonu ci ñaari mbir jaamu yàlla liggéey la ak woyof toy ak tabe moo tax sëñ bay jaxate ci ni mu dégg sëriñ Tuubaa dafa wax ne ma gàddu bu wér man bëj géwél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 nit nag bu amee yéene ju yaatu ba noppi rafet lu rek yaayoo na ko yéene ji ñaawut xatut ma xam ci moom tab goo xam ne sax dama koy wooyee sëriñ Masamba li sax ma di ko wooyee di ko tooñe mooy dañoo wax ne sëriñ Masamba dinaan lépp sax di maye moom tab googu ma xam ko ci moom moo tax ma di ko di ko wax ne kii sëriñ Masamba mooy tax ma xam ci moom ak bëgg sëriñ Tuubaa goo xam ne it ak walanteeru ay jamono de biñu nekké ak sey Moustapha am sey Abdou Mbacke borom dër bi ci biir kër sëñ Soyew fanane la laxasaayu di bind ba bët set danaan fanaan laxasaayu di daan def di bind ba bët set lépp lu sey Moustapha ndax mën naa nekk mu ne ko mën naa kon nit bu fekké ne day yéene aw yi wu yaatu lu man ci lu baax def ko ndax li ma xam ci moom mooy daara jone yéene woon na yor ko bari na daara ju fi am courant moo ci taxaw bari na daara ju am ndox moo ci taxaw yéene ji toll noonu nag ku ko am loo am rek yéene ko ñëpp dañu ko war a ko war a ñaanal mu yàgg fi ko mu egg ak liggéey kenn war a taxaw di ko xeex mbaa nga di ko bu ndoxtaal mbaa jàpp ci lu dul noonu li sëñ Abdou ni koo xam ni waxi daawam ak waxi renam boo ko xoolee mu doon benn kuy bëgg kuy jàpp jàppal nit a ngoogu kuy ànd àndoo googu loolu yi mooy li ma seetlu ci moom te it sëriñ Souhaïbou it mas ko wax ni ko damaa am ci yow yaakaar ma jàpp ne yaakaar yi doon seen tuwaay du tas noo ngi am yaakaar ci bu yaakaar jooju bañ a tas duy ñaan suñu borom bañ a tas bëgg ñëpp ñaan la ko bañ a tas sëriñ Saliou dama am seere sama diggante ak moom ndax dafa bay mbay ba mu àgg mu jox ma ko moom sëñ am sa ni ma damaa bëgg nga joxal ma ko sëñ bi ndax li ma wër ci fari facture courant ak téléphone dafa bari te su ma yeexee dinaa ko ci fay te dañ ko liggéey ngir jëm Sëñ Tuubaa ma bokk teg ci loxo moom fii nekkal Sëñ Tuubaa ba ma demee wax ko sëñ loolu la ci teg loolu nag kon ñu ñaan suñu borom may ko ak yeggale akuk yegg ak tawféex di ñaan yéen ñii nga xamante ni yéen fi dajaloo di kuréeli xasida yi ak ñi ci am yéene ak ñi ci jàpp ak nu ci nit jàpp rek yéen na la suñu borom defal tawféex defal leen ndimbalam defal leen xéewal akuk mucc ak nangu goo xam ni amutu bi amukaay adduna alaaxira jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu. jërëjëf ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay ñu ngi lay dokkee waaye ñu ngi lay ñaan suñu borom dolli la wér suñu borom dolli la kàttan suñu borom dolli la dooleel ci barke si day joxal ko fii di nuyu njabootu Sëriñ Tuuba bi ci teew yëpp tàmbale ko Sëriñ Abdou Samad mi nga xam ne moo fi teewal njabootu Cheikh Chouhaïbou Mbacké ana mboolem njabootu di beral nuyoo suñu dalalu xel sëriñ Amsatu Mbakke moom ci xasan ñu ngi lay beral suñu yow bopp te di ko yëkkati ci sa kanam kilifa yi di la beral sa kanam bopp te di ko yëkkati ci sa kanam kilifa yi ndax kat wolof nee na ragal téye te day xaj wërs ñun féete nañu yow wér te ñu ngi koy seeral yang morom di ko seeral yeneen bu dañuy seeral ko saa di koy seeral mbokk yeneen bi yëpp di ko seeral sëriñ bu baax ci ndimbalal saxam al ko gaa bakke ak yëpp am nañ ndey ci jàpp ci day wax moo tax sunu neex na allah kon jërëjëf di ziare mboolem ñu bokk la liggéey bii di liggéeyu xasida di leen ndokkeel ci taw bi wax ji nga xam ne borom ba ko muy ci suñuy xel ñu daje dajaloo ci benn barab yéen dafaa jàng alxuraan ak xasida yi sëñ Tuubaa yi ngir lan ngir màggal mbindam sëñ Tuubaa moom yi mbind moo xam ne su ko borom di bind aras day jaayu malayka yëpp di jaayu yonent yi seen xol yi fuddu siis bi yàlla toog di yëngutu mbind moomu lañuy ñuy màggal tey turu xasaayit day yàgg na fi waaye ku ko mos bind far na buñ tuddee xasida rek xel yi dem ci sunu waa ji ndax moo ci def lu kenn musta def am ci lu kenn musta am di ci maye lu kenn mënul woon a am te nun ñii seera ci kon jërëjëf Mbàkke na mbër feeñ na sukk sëduma ku ñu nag saa yi wax xamuma mbirum mbër maa nga gis suñ sooy ko àll ba ak Allahu akbar te mooy la war léegi sax ànd te ci war yow am sa moom suñ sooy ko yow jàng ak jàngale te mooy li jag ku ca néewul ma nga ca jag lii mooy dugub suñ sooy ko yàlla mbay lii suñ bamba yi lii a bëggoon néewul ba néewul yaa ngi yoon si gën nga yow suñ sooy fexe ba jàngal alxuraan nit ba mu mokkal alxuraan yar ko ba muy soleeg safaan lii ngay bàyyi suñ sooy xamal nga dal ñi morom ba jëf di gën bàyyi tereem nit ñaa ngi sant gën ak yéem te yéem nga lool suñ sooy sa bàyyi bu dëri sun rus ndax alxuraan yaa ngi rus yaa ngi sikkar ne rus dooru sële ko saa yow yow yaa ngi jub moo gën a wóor ngir yaa ngi jàng yaa ngi woor ci tegu woo ci lu wóor lii reena ma tey siñ saa yow siñ saa yow lan ngeen a woon ci njàng mu bëgg woon bëggal nga lool siñ saa yow sa maama moom moom alxuraan ak moom doomi alxuraan am sa si si alxuraan yàlla naas miinam sa it amul kalaas képp ku koy jàppee kalaas na ci Mamadou Soye la xam naa xam naa yëpp téeméeri mbéy ngi nuyu kilifa yi fi teew yëpp di jiital ci nuyoo bi Serigne Mountakha moom seex Mouhamadul Basir di nuyu Serigne Abdou Samad moom Serigne Souaibou ak Serigne Amsatou mi ñu fi dajale. xam naa man samay kàddu du gudd lool ndax jotaay bi ni mu yàggee te kilifa yi war a jël kàddu. waaye bisub tey bi kuñ ci ne jëlal kàddu te jëloo ko xamoo li xew ndax ku ci feeñ mën naa am dootoo nëbbooti ba mukk ndax bisub xasida yi la ndax alxuraan bu fekkoon gerte la gu jóge ca tool ya ñam fekkoon ci jamono ku ne danga koo jël ñenn ñi caaf ko ñenn ñi baxal ko sëñ Tuubaa moom bi mu ko jëlee da koo segal te nag maneta nak ku ne xam na ne tiaf ak baxal ak diwa ko gën a mën yaatu ndax diw man na togg lu ne motax tax ko segalee muy xëtide yi xëtide yi man lu ne serigne am satu jërëjëf mu mel nak serigne touba mom damay faral di wax ne daan na bu yagg ndax dafa wax mag ñi ci ndiarim ne leen batup sa tu xam ngeen lu muy firi ñu ne ko xamuñu ko de mu ne mbeur mi ñew ci lamb ji daan mbeur yépp ba mbeur yi jeex mu taxaw ci digg arène bi amatut kum bëreel nu muy def ñu ne ko xanaa day bàkku mu ne kon baatu sajaj de mooy curr mooy daan naa ñëpp sëriñ Tuubaa ne man laataa may songoog noon yi laa daanoon ñëpp daan ne sajajtu la dal xab lu mu xablu mujaahidan sëriñ am sa du jërëjëf xasaa itam yooyu nga xam ne boo bëggee gis njàmbaaru nit da ngay laaj lu mu wax wala kum yar wala kum jur ay waxam mooy xasaa idi yonent yàlla ibrahima dane yàlla damaa bëgg li ma defal nga defal ko samay sët yàlla bañ ne ko ndax sa sët ku ci dutub tooñkat ma defal ko ko israil mi lëmbaaje jamono bay noggut waa Palestine baatu israil li muy tekki mooy yaquba te yaquba isxaaqa moo ko jur isxaaqa ibrahimaa ko jur kon ku ne xam ne sëtam ya am nañu ay kàccoor waye nak suñ borom ne duma yam fofu foofu amanu wattaba'atuhum tabaatuhum zurriyatahum hal haqna bihim zurriyatahum serigne touba daan ne zurriyatan tayyibatan tujaddidu nahja nabiyal Mustafa tajtahidu kon ba legi làmb ji tëjagut waye nak li serigne bi joxogn fofu momata xam waxut ne sama sët yi bax de dane tayyibatan yu bax waye dal cey tek nak ne tujaddidu te serigne touba dane won bil Mustafa nawaytu ma yujaddidu kon day mel ni jaddit googu du wees ba mukk falaa budda ci ñuy yeesal diine fu ñu mën a toll mu ne sama sët yi dana am ñoo xam ne bu jamono jaxasoo ba nit ñi tasaaroo xàmmeetuñ ab sëriñ ak këriñ xàmmeetuñ ak leer ak lëndëm dana am ñu dem beru ci ay ruq wéetal fa seen boroom wéet fa ñoom dong samp ñaari néegi ñax ñoom ak seen i taalibe léeg-léeg ñu añ léeg-léeg duñ añ léeg-léeg ñu lekk miskit léeg-léeg duñ ko am ba mujj seen kër xat ba dañuy mujj di daw nit ñi ngir mën a jaamu yàlla loolu mooy ki wéet ngir mën a defal nit ñi sëriñ am satu jërëjëf sëriñ taxaa fi may daaneele yal na la fi yàlla yàggal waaye na sam xel dal ci ñaar ñooñu toog ci sa ndeyjoor muy sëriñ Abdou Samatum sëriñ bu ak sëriñ am satu sëriñ am satu kenn du ko gis ba yab yoonu murit waaye sëriñ Abdou samat kenn du ko gis ba yab yoonu mu murit lislaam rek lay teral fu mu toll dafa am ñaari xale yu gañe concours alxuraan ci àdduna bépp fu ne ñu wër fa kero ba ñëwee ci sëñ Abdou Samatum sëñ Soxaay bu dane leen dama leen di yóbbu màkk daal di jooy ci alxuraan ja ne ma su ma yóbboo maam jaara dong te yóbbu ma Muhammadul Mujtaba day mel ne li ko tuddee sama maam a tax te alxuraan dong laay teral biñ demee màkk ma daje kilifa gu mag nettali naa ko sëñ Abdou Samat ne ko ñaari xale yi ma àndal sëñ Abdou sama a leen indi màkk mu ne ma ku ko ma ne ko sëñ Soxaay bu kooka leneen la ci yeneen mu ne ma dama nekk Dakar yorub kaamil dugg ci oto oto ba asamaan si di taw ma wàcc làqatu ci station yor kaamil bi am benn waaye bu ñëw di kof kofi ci taw bi ak mbuus ñëw jox ma ko ne ma dugal ci alxuraan ji ma làmb sama poos génnee juróom fukk di ko neexale mu ne ma man yelwaanu ma taalibeb sëñ Sohaybu laa te sëñ Sohaybu féete woo alxuraan moo tax may bañ alxuraan ji tooy salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. sëriñ Hamsatu bis bi nga xamne mbollem jangi kete xaside yi ñi durus ak ñi yëkkati ño andando di defé fi ci mom di ci sàkk ngërëmul serigne bi nga doxé ci ni nga ci doxé won daw nu jël loola di dimbandiko diko di batay ji barki démb bi ma la ko waxé ne la yalwaan nañ de buñ amoon lañ amoon daw dana bax lol ci yi nga julli si fa timis te ñaanal leen la nga ma ca tegal rekk dafa doy dane ma bis boobu day bu ma doon raam di fa demit danaa raam dem fa teg ci ne ma bu ma demoon ba mënuma dara bañ dama teg ci pus pus sax danañ ma ca teg ma dem fekkee ji bis te loolu muy dëgg ci moom moom ñi mu bokkal sëriñ bi kum ci gis sëriñ bi lay xool ci yow moom lay wut ci yow nun nag sëriñ bi nongoog rek la waxoon daaw rek la wax ren yaay sunu lépp di sunu kilifa di sunu lépp rek sëriñ seex lim lay faral di wax te tàmm nu ko wax ba ñu miin ko ci bi ñuy gone ba nëgëni mooy sëriñ Muntaxa mooy taawu kër gi kon nun de dañoo fekk suñuy waajur doy loola xam naa ne am na ci loolu sax yow ci sa muroo atu ak waggar gi nga waggar waa kër sëriñ bi doo bëgg sax ku ko wax waaye nag day loo xam ne ku ko waxut it ku ko xool gis ko ku ko déglu dégg ko loola mooy li tax nga doy nu sëriñ saalixu sëriñ murtada radiallahu anhuma bi mu fi jógee sëriñ saalihu daf laa woo ba nga ñëw mu ne la sëriñ Muntaxa sëñ Murtala dafa wàccub liggéey te yaa ma ci doy demal taxawul ma ko te booba magoo fi waaye la mu xool ci yow ba def loola ko moo ko xam bi ñu demee it ba def lam la nga war a def ci sëñ Murtala ba mu jàll ba la woo la la wax xam naa ko yëg naa ko ba yàlla dogal nga mel ne ku tàggoo sa sago di jooy ndax mosoo dégg sëñ Saaliw wax loolu mooy sëriñ Muntaxa loolee nga defal sëriñ Murtala man mii itam noonu buñ ci àggee defal noonu loolu moo tax kero bi sëriñ Saaliw wàccee sëriñ Seex Saaliw man mii la yebal ci yow ne ma neel sëriñ Muntaxa la ko sëriñ bi dénkoon egsi na nga dem taxawu ko na nga taxawoon sëriñ Murtala ma ne ñaari doomi sëriñ Tuubaa nag ku ñu tànn ba nga ne doy na ci nga taxawu leen man wóor na ma ne koo julleeti mu dem àjjana waaye du ca yam sëñ Abdul mu baax mi dafa waxoon ne kenn di wax ak moom ne ko Mbàkke damaa dégg ñu ne koo jullee mu dem àjjana mu ne ko déedéet bul yam foofu ak ak ku ma jiit ak julli it loolu lii nag sëriñ bi njëggal gi ak liñ bëggal taalibe yi te mënuñu ko moo tax ñu ñaan la nga ñëw ne xam nañ sa daraja xam nañ sa wàccuwaay bëgguñu laa sonal waaye xam nañ sa pas-pas sëñ Tuubaa moo tax ñu ñaan la lii li muy diis diis te nga wax ne loo ko tëli tëli da nga ko def kon nag yéen bokki taalibe yi na ngeen yëg ne képp ku jullee fii ànd ci julleem gii yóbbaale woo bakkaar set nga wecc wecc wecc sëriñ Xamsatu nag ak cantam ci yow mënu koo wax ciw làmmiñ ndax waxtu wu ne nga di ko won ci sa bopp cofeel gi nga am ci moom ak yaakaar gi nga am ci moom loolu ak laxasaay la koy def fas yéene gën góor góorgóorlu dem ca kanam mi ngi jottali nag ay cant moom am Amsatu ci mboolem bokk yi fi ñëw ak taalibe yi fi ñëw sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacké mi nga xam ne mooy sunu kilifa dox suñu digg ak sëriñ Touba te kilifaam ñëw na fi biig wax fi wax yi rafet sant ko gërëm ko ñaan yitam ne mu ngi ñaan sëñ Touba te am na ci kóolu téef ne fii ku fi ñëw loo fi ñaan sunu borom def ko loolu sëriñ seex wax loolu nag li tax tudd gu ma woon ku mag ki mooy yaay moom te yaa ko fi teewal kon la nga war a wax ci ndigalu sëriñ seex Mati lay jërul man may jottali dara sëriñ Cheikh Mati lay ndax moom at mu ne bu ma ko ko fàttalee la muy wax mooy xanaa kay da ngeen a kii rek waaye lii moom jërul fàttaleeti ni ngeen koy def te di ko yaatal waxtu bu ne waaye amatul ndigal la ndigal nañ leen ko ba noppi kon nag ndegam da ngaa ñëw taxawal fi Cheikh siy Seydil Muxtaar teewut sëñ Cheikh Baara ñëwoon na ci bëccëg sëñ Xaadim doomam mi ngi fi waaye yow yaay ki ko doy ci lépp lu ñor lu ne mu yabal la ca ñëwaat nga ngir jëmmam. loolu kon ñu ngi lay jottali sunu cant mu jaare ci yow nga yóbbul lu ko ca moom ñoo ngi jéggul yóbbante gi nag nii mu sante bokkam yi itam képp ku bokk ci ma képp ku bokk ci maam Balla Aysa képp ku bokk ci Mor Anta képp ku bokk Seexul Xadim ak noo ca bokk ci góor wala ci jigéen noonu la boole cant yooyu teg ko ci loxo Sëriñ Muntaxa mu jottil ko bokk yépp waaye naka noonu itam képp ku mas a jox sa bopp Sëriñ Tuubaa tàmbalee ko ci sëñ Adama Guèye Cheikh Adama Guèye Cheikh Ibra Fall sëñ Mandoumbe Cheikh Issa ba ci sëñ sëñ kisi la sëñ ndindi sëñ ndindi mi ci mujj seex ñooñ ñëpp boo leen boolee seenu cant Mbàkke ndegam ak taalibe rek la ñor kon mën ngaa wuti taalibe yi foofu nañ lay fi cant googu de ko teg sa loxo ndax yow jàpp yoo sa bopp ci biir taalibe nga boole sa kon nag bu ëllëgee bu sëriñ bi fay taalibe yi da fay bu sëriñ bi fay bok yi dañuy fay yalla nañ bok ci pay googee rek bu nit ci seen ëppale li ci dess nak moy bokki talib yi nga xam ño sos li serigne ali Diop wax nak ñom ñoom li ma ciy doli moy kañ leen gërëm leen sant leen ci turu serigne Amsatu ak ci turu serigne cheikh ak ci turu serigne Muntaxa ak ci turu cheikh Sidi mukhtar ndax fi dootul magalu kër magalu yoonu murid yépp la li serigne bi wax dafa bax wax ko waye bu ko waxto ni nun xamna ni fofu la ne bu don ram difi fi dana ñëw yeeyu mbolo bi qasida yi nak du alali baadoo la ndax mag mag mi ko liggéey liggéeyan tuut قصوري قلت والأهل عني تفرقت لمدح الذي عنه المديح قصير dem juróom ñaari at ak juróom ñaari weer ak lu topp ci ay fan diñ jàkkoonteeg la muy jàkkoontel bàyyi fi mbooloo mi gisatul addiya gisatul ku koy warmaal gisul kenn ku dul ku koy def la ko naqari ak di ko ko wax mu jaayanteeg boroomam ne foofee maa yomb gi mu njëkk dem am fa juróomi at dem na ba juróomi at yi des lu tuuti mu door a a dégg koy wax wolof waxuma laa ko gëm wala waxuma laa ku koy wormaal bi mu ne cëpp li mu def digg mag boroomam da ko ne jaayante naa sama noon yi duñ xam sama soxla duma ma lekk seenug lekk duma naan seenug naan suñ borom ne ko danaa la jox sërru ci lem nga di ko dunde doo lekk seeni lekk dana la doy ak lekk akuk naan defal naa la ci barke mu ne ko waaye lem gi it bu fekkee ñoo ko moom fa suma ko yéenee laaj mu ne ko danaa yebal yamb yi ñuy ñëw ci yow loo ci soxla nga jël ko ci ñoom dafa mujj sëriñ bi ne lem yi yamb yi dañ koo sonal sonal ba mujj dafa waxtaan ak ñoom ñu doon ñu ne léegi dañuy def bu alxemesee groupe sàngam ñëw bu ajjuma beneen ñëw ndax mënatuñu la jël nañ ko witt witt ba xamatu lu muy def benn yoon la daa lekk lu jóge ci garab te mooy koor bu ñuy um bu xët bu dog jotee mu jël ci xobi mango yi muucu ko ba dara jàll mu yëg na dog ndax sunna si bu xëdd jotee mu defaat noonu sëriñ Abdul Ahad nett li na ko fii ne am na yoon woo xam ne ab xaal la fexe ba am ubbi xaal bi bu dog jotee mu dog ci ba jàll dara jàll bu njël jotee mu def ko nee na ba koor ga jàllee xaal ba mën naa waat kon kooku xam ne yii nii lekk yor ko woon leneen a ñuy def ci xaside yi sëriñ bi loo wax ci moom lu mu rëy rëy li mu wax ci boppam ko gën a rëy ndax dafa xam boppam ba mu gisul kenn malaayika yi ñoo koy awal xasida yi day jóg laxasaayu takk ndigam aw ci tefes gi di dem di yëkkati xasida yi ca kaw kon kenn jumbute jàng xasida moo taxit yàlla defal koom ci xasida yi loo xam ne mosu koo defal kenn te du ko defal kenn bari waa ne murit boo dégg mu ne ci biir bàmmeel moos boo mënoon wax ak moom danaan la jotumaa gis sëñ bi ndax bi mu laataa ñëw xasida yee maram jaawartu mii loolu la ci wax dane damaa ñàkkuk jot te bëgg mu dima wuuti ci murit yi kooko ko mokkal malaayika yi duñu laaj ci bàmmeel la ma waroon taxaw ci bàmmeel di wax ak malaayika bàyyil diw bàyyil diw du ma ca fekk jaawatu moo lay layal xasida yi day bu ma duggee ci biir waxtaan wi day mel ni ubbi lu ma sëriñ bi damay waxtaan te loolu waruma waaye ma xam ne sëriñ bi daana toog am na bis mu toog soxla satla gu bax yàkkamti ko lool am kum ne baxalal ma satla gii kooku it defe ne siñ bi yàkkamti gi mënta dem di wuti matt di ko ci mu daal di fa xasida Nuuru Daarayni gi mu yoroon tiimale ko satala gi mu daal di bax bay bay bay bay tuuru xasida gi rek la ko tiimale sëriñ bi ne ko lii man mi ko bind maa la ko dàq demal wutik la ay <laughs> matu matum jalambaan baxal ko ci ba mu bax nga andil ma ngir wan la ne murid yu mag ya lu ne lañ daa def ci xasida yi lu ne dégg naa ci sëñ Saay bu mu ne tox toxfatu mu di yi mësuñu cee weesu luggug jaan xas xas rek toxfatu duñ ko ci weesu mukk aajo yi lu mu rëy rëy nee na mësuñu wees jàpp ba sell jàng ko juróom-ñaar yoon mu faj seen aajo kon nag lu des ci noonu la dese waaye du ci xasida yi ah yaakaar naa ne nag li sëñ bay Jaxate di wax naan cëru waay cëru waay ku bëgg it ba fa mooy lii ndax bisub xasida yelloon na lool tajaadu jaadu lool waaye dafa mel dañ koo dencoon ba sëñ Xamsatu ñëw ñu jox ko ko këru xasida yelloon na lool te jaadu lool ni ko alxuraan mu amee ni la ko xasida war a ame waaye niñ defal sëñ Abdul laxaat mu di ko nekk di ko nekk ba mu ñëw mu door wutal alxuraan kër noonu yi lañ la defal mu di ñu di nekk di leen nekk xel du ci dem kenn du ko bàyyi xel ba mu egsi ci yow ndax sëb cër nga dëkk këru xasida gi waaye kër gii day daaw la sëriñ bii te xeer wi liñ fi nasaroon liñ fi ne soroon lépp bu dee juróom benn xaaj benn bee àggagul mooy mbaar mii te bus bii jàll ñu sam ñu somm ma ca kon nag mel na ni li fi taalibe yi indi gis ngeen fi mu ko def Cheikh Ahmadou Mbacke Gaynde Fatma danaa wax ne nit ñi de ba ñu ñoo joxe waaye dee leen laaj luñ man te di ko def fu ñu xam yéen nag li ngeen laaj li leen laaj wala laajuñu leen ko sax yéen a ko jox seen coobare fi ñu ko def gis ngeen ko mi ngi nii ak seen bët kon nag sëriñ bi. xana soñi addi yi sëriñ am sotu waxoon ak taalibe yi ndax loolu lu am am solo la gàddu sa ab saak mu fees del la ci xasi da ngay durus rek di dem defe ne xasi joxe addi waru la loolu ak waru la nañ ci mucc daa bëgg mboolem jàngati xasi yi nag ñu di ci boole di joxe yoonu joxe moo ko yor dajale woon nañ ay addi yët ko ki fi nekkal seexul xadim mi ngi leen di ñaanit ngeen fas yéene bu ngeen dégg baata fee tàmbali ko waajal bu dajee ñuy taatu ki fi nekkal seexul xadim ba bu ëllëgee buñ demee ba fay ba fa ñuy fayee ñuy joxe ñu boole leen ci ñi ñuy fay gaal gi kat ku ci defut sa mbubb boo ëllëgee bu ñuy laaj it dara gaalu kese wàlluutum ndaje kon nag sëriñ bi ngir guddal fii lay gàttal rek di sant cant gu ànd ak di sant njaboot gépp njabootu sëñ Tuubaa gépp ñëpp teew nañ fi li gën a neex na nga digg tëjal lu ko mu wóonu ne yow loo ñaan suñu borom mu defal la ko ndax àgg nga ci sëñ Tuubaa foo xam ne jeex nga ci moom takk takk takk takk te wóor na ma ne bëtam bëtub yërmandeem bobé mi ngi la koy xol ci mbolo mi kon nak lañ ñaanon daw la ñaanat ku fi ex na muccu te bu yobale bakkar wa bàkkaar alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh صلى صلى عليه من هداه والتقى بكعبة ساقت شيوخ التربية وكل خير وشيوخ الترقية قصائدي هاجت قلوب الأنبياء مع الملائكة عند ربيا قصائدي خربت تنقل لا ينتهي فيها نبي يعقل قصيدتي ساقت قصائد الكرام والكتب ابد خيران إذا كتبت تنسى عرش الله ظل وغاب كل جان الله إذا كتبت تنسى عرش ربنا وسبحت بنت العزيز في البلاد سبقت غيري إلى الجنان مع النبي فرس الأدنان يجدني عند المجيد المقتدر كل ولي من الجنان jiituma ci wax ji doyoon na sëkk waaye baax ki Cheikh Abdou Samad dara da ci mënta dolliku ndax li nu ci bëgg a xam lépp ngi ci biir waxam ji kon dara da ci mënta dolliku lu nag rek sant ak santlu nun li gën a war ci noonu muy sant rek sëriñ bi cant gi nag dëgg la mën nañu jéem mu dëggu ci xol yi gën a jéem it mu dëggu ci xel yi gën a jéem it nag mu dëggu ci jëf yi nun sant sëriñ bi rek mooy suñu wartif ndax fàggul nañu lépp dëgg la yàlla moo nu bind andi nu fi di nu jaamuloo nu di jaam ñu war a jaamu kon bu ñu bëggee sant sëriñ bi il faut que nu nangoo jaamu sunu jaamu nun mën nañ cee fas jaamu yàlla liggéeyale ko sëriñ bi ginnaaw loolu moom jaamu yàlla moom sañu nu ko bañ kon sunu jaamu yàlla nun mën nañ cee fas liggéeyale ko sëriñ bi luñ ca mën a dolli nag ca lan sunu borom bàyyee luñ ca mën a dolli nag ci jël ko liggéeyale ko ko nu dolli ko ca kon sunu cant noonu foofu rek la war a nekk ak cant dong laay dolli ci wax yi Cheikh Abdou Samad ji góor góorlu ci sant sëriñ bi fa tabaarakallaahu paggu paggu téef bi nu sëriñ bi faggul ci nu bëggu ko ba mu gënoon lu lépp nu doyloo ko ba mu gën gën noo doy lépp loolu mënoon naa doy waaye nag sant sëriñ bi ci nun wurta am fu mu yem bëgg gi moom ak doyloo gi moom moo nu ko faggul am nan ko doon sa kiisam tey ak ëllëg waaye nit munta a toog loxoy neen li nu sëriñ bi defal war noonu koo sant sax ca sant ga faw feeg noo ngi àdduna yóbbaale ko su yóbbal ci alaxira di sant sëriñ tubaa kon góor góorgóorlu bu baax lanu ci gën a dimbali nag te yombul muy waxtu wu nekk muy jéem a gën a xam sëriñ bi muy waxtu wu nekk muy gën a jéem a dund sëriñ bi lu gën a xam sëriñ bi gën a raw lu ko gën a dund gën a kawe ñépp kon foofu la liggéey bi nekk ku bëgg liggéey foofu la liggéey bi nekk ne ni jéem a xam sëriñ bi sax ca dàkk te di ko jéem a dund lii sëñ Abdou wax sëñ Abdou Samad wax yi mu fi nettali fii loolu doomu aadama mënu ko waaye nu nu jël sëriñ bi teg ko sunu kanam am nam nam doon doxe digg ma boroomam digg ma yonent bi ak nag doon doxe digg ma boppam nanu fab sëriñ bi ginnaaw lu ñu ko gën xam gën a raw lu ñu ko gën a dund gën a kawe ñëpp la liggéey bi amaa moom ci boppam ginnaaw sant ko rek mu war a doon suñu liggéey yaar buñ ca góorgóorloo dañ koy gën a jege muy gën a bég mu ñun yaar nun ca gën góorgóorlu dañuy gën a jegeel boppam di gën a bég ci loolu nag yaakaar naa ne murit loolu war na ko jaral lu ne kon yaar la ne war a góor gën a góorgóorloo dinaa dañoo bëgg bi di bég ci ñun nu bëgg jege sëriñ bi tey ga nag dañu góorgóorlu ci yaar nañu jéem a set set set yi bàkkaar sunu kepp kàttan yomb nu waaye nañ ko jéem ndax moo ni ci sëriñ bi nanu gën a fonk xasay xasay di mooy suñu xaas lu nu gën a fonk xasida yi sëñ bi di gën a bég ci ñun lu ñu ko gën a jàng gën a jege sëriñ bi waxi sëñ Abdou Samad bi loolu yaar yooyu laa ci dolli nañu góorgóorlu bu baax ci jéem a set di gën di set ndax lu mu gën a set rek sëriñ bi gën a bég ci ñun lu mu gën a set gën a jege sëriñ bi te man ko xasida yi nag xasida yi moo nu war a dàqal lépp lu ñuy lekk lu ne jàng xasida moo nu ko war a dàqal luy dalal xel lu ne ci xeeti ngarna yi jàng xasida moo gën a gaaw noonu rek la demee foofu rek laa yem waxi Cheikh Abdou Samad ji boo ci dolli dara waaw cant rek laa ci dolli kon nan ko dégg bu gën a dégg bu baax nan góorgóorlu ak lu mu jafe-jafe-jafe nanu jéem a góorgóorlu di gën di set góorgóorlu ci xasaayid yi di ko sàmm di ko jàng def ko muy sunub dund ndax mën na ko loolu rek euh, euh, euh, li ci maanaam nag sa sa yëpp sax moo tax ma fa bàyyi li ma nar wax. waaye. maa ngi jégalu maa ngi jégalu déglu leen yéen ñëpp sëriñ bi de maa ngi waxal bokki taalibe yëpp dafa am luñ lay ñaan kenn ku ne ci noonu am na xasida goo jàpp ne mooy sa xasida ni murit bu ne mel nga xam ne doomi Sëriñ Tuubaa yëpp nga fonk te gëm leen waaye da fab kenn mu ngi sëb nun ñii ku ne am na xasida goo féete woo defe ne mooy sa xasida waaye lool dañ ko coobarewu def ko rek tey jii nag dañ lay ñaan nga jox nu goo xam ne danga naan jox naa leen digal xasida sàngam goonu jox rek ñu foog goonu tibbal rek ñu sëñ def doy na sëg nooru daari nooru daari moom nooru daari moom am naa am naa ci am naa naa am naa am naa am naa ci firnde nooru daari ni am naa ci firnde nooru daal nii am naa ci firnde sëriñ Cheikh Salihu moo ma ne woon dee ma ko jàngal nooru daal nii Cheikh Salihu moo ma ko jàngal ma di ko jàng bi ci mujj ci mujj bis bu sel ma jàngal ko ko bi ma ko gisatul te yi bari aji mu juree ma jàngal ko ko boo koy jàng ci fas dara Seex Saaliw rek laa koy jàngal moom laa koy dëggee waaye xasida yi xasaa yi rek laa wax waaw guñ ci gu ci wóor ni sëñ ne ko bind koo ci jàpp doy waaye nag lu gën a bari gën a baax <laughs> noo ko gën a yaatal mu gën a baax waaw li ma doon li ma ci nag moo di loolu dafa dugg lépp ci waxi Cheikh Abdou Samad Serigne Bassirou dafa am bis mu maag beneen mbokkum bi muy waxtaan ak nun ci sëriñ bi mu lam nu jëkk nett li ci biir wax ja xam koo xam ne dafa ñëwoon ci sëriñ bi di ko di ko jaaxle daal bëgg mel ne ku bëgg xam sëriñ bi lu mu doon sëriñ ba mu yàggee ba yàgg sëriñ bi ne ko diw boo yoon dalli nañ di ko doxe ba mu xar doo gis ku mel ne man <laughs> ah sëriñ bi nag sëñ Basiru moo ma waxoon fullaam te wax la dem ba tàng xaal ne waaw sëriñ bi sax mu am na fulla foo ko toll rek mu toll fa day waxtaan day wax ba yàgg mu gën a tàng ne waaw sëriñ bi sax am na fulla foo ko toll rek mu toll la kon bis bii leer na taxaw sëñ xamsatu bii leer na naññ leer na naññ sëñ bi foo ko toll mu toll fa leer na moom nag dañuy gën ñaan rek waaye sampu sëñ bee waaye dañuy gën ñaan nag bu gën su ma gën koo sàmm bàyyi ko fi lu yàgg mu nekk ci liggéeyam bi فتبارك الله الحمد لله رب العالمين لبا قسرين بي طالبي بغ ني سيرين بي لول تي بوكو دي سيت داغي ديفاني كوني صاح يجوك دك ما كنا بغ دك بوكو دي سيت نيب كو بغ طالبي ييب كو بغ واي بوكو دي سيت داغي ديفاني كوني صاح كنا بغ لولو نك لولو مير لا لولو مير لا بري ناوي جيجين ييك ييب بري جيجين بوكو دي سيت داغي ديفاني ньо گنا بغ سيرين بي لولو مير لا mën naa dalal xel waaw sëñ bi fag fàggul nanu lépp waaye bun na yàcc bun yàccaaral bun sàggan nanu jiima sant sëriñ bi ci ni mu ko bëggi noonu rek la demee jërëjëf ñaan ko ci ñaan ko ci bopp Touba ca kanam